li nga def dégg naa tegoo ko démb laa dégg ñu ne Boy Seye dara dal ko mu am médical loolu mbar war na ko def. non da ngaa dégg ñu ne dama la ko dégg man xam nga man samay wax moom du ma laam laame man lu ma dégg. salaamaaleykum Baye Jili. maaleykum salaam non ñëwal ci am. déwénati ba pare. fekkee déwén yooyu baal naa la baal ma yàlla yàlla boole jéggal ñëwal ci. ñu ngi ñaanal Papa Siteu yàlla may ko dam Papa Siteu. barke Sëñ Bamba moo indi lii lépp ngay gis nii xale bu ndaw la ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam. ban combat. sa diggante li ma dégg loo dégg. dañ ne yow yaa ne dara dalu la. waaw yaa bëgg a am envie bëriwoo mais laaj loolu ndax ndax mbër sañ na ko promoteur bàyyi ko noonu. waaw kon jàppal ne amul làmb dafa am règlement CNG dafay nekk. promoteur bi nekk fi du ngaaka Assane Ndiaye xam nga pendant des années muy tëgg ay combat tëgg fi ay combat yu mag booy sey moo gën a tuuti si ñum tëgg kon xam nga man. ba pare en plus sax même bu dul dara même bu dul dara Cheikh Super Diamono bëreek moom man fan la may yóbbu. Eh, bul wax loolu jël nga avance ba pare. amatoo loolu léegi nag léegi kon man lan laa si yàq. ma bëre ma préparé Tapha Leer def ci ay millions ba mu des 15 jours Tapha Leer ne bëreetul ma préparé waa Cheikh Super Diamono le 22 mai def ci ay millions ba mu des semaine moom mu ne dafa blessé. ñu jàppaat date bi la 3 est que man xaalis boobu ma perdre dinaa yàq ay combat di gën a perdaat xaalis. lu lu ñenu maanaa laa lay wax waa ci bopp loo xamante ne xel du ko nangu. waa moom na noppi. moom Cheikh Super Diamono man du ma moroomam na noppi. moroomam nga ndax lan moo ma taxoon ma jëloon ko bëgg a bëreeg moom xam nga la moo taxoon ma jëloon ko. parce que man kenn ñemewu ma wax naa la ko chaque jour ma wax si micro yi mais gars duñ dégg fi may waxee man benn mbër ñemewu ma. waaw man booy Seye benn mbër ñemewu ma si àddina. jël sa avance yomb bi mbër ñemewu ma léegi nag xam nga la mooy problème bi comme que moom nee na dafa bëgg ñu tàqalikoo bëre ak moom amalu ma benn rendement bëgguma woon sax wax si moom mais yow soo ma dékkee micro il faut ma wax Garga 2 nañ ma ko jox ma ma duma ko fii ci stade bi daan ko xam le Garga 2 nañ ma ko jox ma duma ko daan ko day xam ne daa takk jabar kay wax merci Matar da ngaa takk jabar da ngay siiw nag amaguma jabar nag amaguma jabar maa ngi samay du yoon ma année blanche promoteur yi bëgg nañ sama combat ñu ngi koy dox xam lu ma la mais kenn ñemewu ma du yoon Garga 2 dégg naa dafa am fit te dafa mën a bëre nañ ma ko jox ma duma ko daan ko fii si stade bi man la say baay jili man la boy